tey ñu ñoo fekk la fi nga wax ci sarak li nga xamante ne woon moom la sekkaloon yéen ci lu baax. waaw suñu rakk la ci la bokk Jules Baldé Junior mbër la feebar bi xaw a yàgg ci moom metti lool ay mbokkam ak ñëpp doon ci def ay pexe lu ne jëm nañ ko ci mais yàllaa ko bëggee nii yàllaa ko tuddee nii waaw moo ñu koy jaalee je parle au nom les lutteurs du Sénégal xam nga moo tax ma koy jaalee mbër yëpp. di ko jaarale ci turu association nationale des lutteurs du Sénégal di di di di ko ñaanal euh, yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ñu ngi koy jaale mbokkam yëpp ah surtout Ama Baldé bi nga xam ne écurie la nekkoon surtout tous les Pikinois écurie yi nekk ci Pikine écurie yi nekk biir Pikine yëpp làmb ji yëpp daal ñu lekk ñu koy jaale parce que tamit euh, mbir bi muy xewee jëm nañ ci ay pexe nag de à droite waaw mais tamit yàllaa ko bëggee nii mais nag ñu ngi koy jaale mbokkam yëpp di ko jaare xaritam di ko jaare ahlu làmb yëpp mais dégg bi ngeen déggee ne ne Jules Baldé yàlla jël na ko fi après affaire boobu noonu nan la def ak métit bi nga xamante ne la àndal ba dem. waaw mooy mooy loolu mooy feebar mooy euh, feebar ñàkk prise en charge ñàkk euh, taxaw bi war yooyu parfois artistes yi dañ koy subir parfois monde sportif da koy subir loolu rek moo gën a tax war moo war a tax ñun mbër ñu gën ñu gën a suñu biir. association bi nga xam moy association nationale des lutteurs du Sénégal ñu gëna a suñu biir gëna organisation la bo xam depuis que ma yalla défé ma nek ci bopp bi ba légui ma ngi def ay réflexion ci yu melni moy euh, euh, bien-être des lutteurs mbeur bu feebar faju mbër mu nek ci ay jafé jafé ñu taxaw la xam nga euh ana carte de membre mbeur bu feebar association bi jël le prise en charge mbeur bu nek ci ay jafé jafé parce que ku sañoon foo mënti nek ci adina rek

surtout nag ñi nekk ci kaw kaw ñoo war a gën a taxaw les ténors pour ñu gën a ñëw dooleel seen ay rak parce que tey jote un exemple Gris Bordeaux karkaaram macha allah yàlla dimbali na ko ba feebare mën na faj boppam Balla Gaye noonu Modou Lo noonu Eumeu Sène noonu Ama Baldé Boy Niang mais am na suñu ay rakk yoo xam ne tey nii comme ku mel ni Jules Baldé nii mënul woon boppam lu bari kon nag ñooñu teg nañu gën a jege association bi xam ne lii nga xam ne tey ñu ngi koy dox di ci jëm ay pexe pour ñoom la pour ñun

ay ñoom suñu papa yi nga xam dañu feebar mënuñu faju mais tamit nañu état bi bàyyi xel mais nag malgré tout ça maa ngi liggéey liggéey boo xam ne di ci woo mbër yëpp di ci woo képp kuy mbër rek nekk ci làmb ji rek maa ngi la ci woo nga gën a jege que tamit mbër mbër mbër mooy mbokkam mbër mbëree bokkam te bu ñu booloo nekk benn say lépp lu ñu bënee bëgg lijjanti ci Sénégal gi nañ ko lijjanti di leen jaajëfal di leen wax ne inna lillahi wa inna ilayhi jërë ngeen jëf